jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñu leen di nuyu bu baax a baax euh, dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi muy émission buy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h. ngeen di sànd ak Abdou moom mu du Diaw Diallo mu nekk ci wàllu machine bi mbokki nag tey ñu invité Serigne Thiam. Uh, Serigne nag bokk ci uh, parti bi nga xam ne moom mooy grand parti mu nekk enseignant chercheur ci faculté des sciences juridiques ak politique ci université Cheikh Anta Diop mu nekk conseil municipal ci euh, ville bu Guédiawaye nekk secrétaire national chargé des élections ci grand parti yor fa tamit lépp loo xam ne jëm na ci wàllum yoon maanaam wàllum juridique Serigne Thiam ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di ziar bu baax Xaadira euh, di nuyu waa Rewmi FM di nuyu aussi ñi nga xam ne ñooy déglu rajo bi. Euh, di nuyu aussi sama leader El Hadj Malick Gakou muy diriger grand parti bi ma bokk tey ma tawal ko fi tey aussi en ma qualité aussi d' enseignant au niveau de l' université Cheikh Anta Diop de Dakar faculté des sciences juridiques et politiques wax ko léegi département de droit privé. Euh, di nuyu sama naataango yu ma bokkal parti yëpp di si nuyu suñu waajur yi ah, di nuyu waa Sénégal aussi yëpp. waaw yokk si présentation bi. waaw présentation bi lu ma si yokk rek mooy euh, sama casquette politique aussi euh, je suis le secrétaire national chargé des élections et des affaires juridiques au sein du grand parti en même temps je suis conseiller municipal au niveau de ma commune euh, Ndiarème Limamoulaye déjà bi nga xam ne monsieur le maire Mor Waré moo koy diriger mais aussi conseiller municipal au niveau de la ville par l'honorable député et maire Ahmed Aïdara Euh, dinañ wax euh, xañ na ci euh, ville bu Guédiawaye Serigne Thiam fi ñuy commencé dinañ wax aussi ci grand parti ak candidature président Malick Gakou wax tamit ci lu jëm ci wàllum pré élection présidentielle 2024 ak président Macky Sall bi nga xam ne ñenn ñi njort nañu ne dafa bëgg am beneen candidature àq ak yelleef doomu aadama yi nga xam ne ñenn ñu jàpp nañu ne dañ koo daal di salfaañe loole tamit bokk na ci li ñuy waxtaane euh, fi ñu koy doore rek mooy euh, Serigne Thiam euh, yéen waa Grand Parti est-ce que communiqué ngeen ci euh, accident bi nga xamante ni tey moo am fan yi ñu génn euh, ci ci ci Kaffrine ak euh, nan nga gisee accident boobu. waaw jërëjëf ci ci laaj bi mu nekk loo xam ne d'abord balaa ñu si sori sax dañuy présenter suñ jàll si mboolem ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan seen i njaboot seen i ñaale ak seen dëkkandoo ak Sénégal bi nga xam ne dafa nekkoon deuil national pour wane nii Sénégal si boppam moo amoon deuil bu metti di seen jaale di yàlla yàlla xare leen àjjana oyofal suuf seen kaw ah, ci tatagal leen ci àjjana yu kaw gën a kawe yi ci ay firdawsi euh, ci kaw loolu aussi tamit euh, bi mbir mi amee comme tout un sénégalais le leader El Hadj Malick Gakou aussi def na communiqué rendu public euh, di méttiitlu accident bi di ñaanal ñi génn àdduna di ñaax aussi ñu gën taxawu ci comportement yi xoolaat aussi ci côté état bi li ñu war a def ba yu mel noonu aussi buñ ko mënta éviter à 100 pour cent ñu mën ko wàññi loolu loolu je pense que képp sénégalais bu dund ci dëkk bi en tout cas wala nga ñàkk fi dëkk rek présenté nga njaal donc leader politique yi y compris sama leader ñoom ñi nga xam ne aussi tamit li leen tax a jóg askan wi la lii tax ñuy wax askan wi la lii tax ñuy sonn askan wi la buñ leen gëmee ak bu buñ leen gëmut loolu moo nekk li nga xam ne moo ñu motiver ñun ñuy ànd ak ñoom mel noonu bu amee du dul mu dul du ko naqarlu donc grand parti ñëpp ñu ngi boole par ma voix aussi di jaalewaat di di di ñaanalaat ginnaaw bu ñu ko defee rendul ko officielle suñu président El Hadji Malick Gakou donc duñ mën lu dul rek di euh, di ñaan yàlla daal loolu gëj fi. d'accord euh, Serigne Thiam am na ñuy wax yenn kàddu yoo xam ne jóg na ne Mansour fay ministre bi ñu dénk wàllum transport dafa war a démissionner yow lu si sa gis-gis. waa xam nga loolu dafa nekk loo xam ni dans les républiques euh, démocratiques dafa am ñu koy faral di jël pour wane ni bu fekkee ni dañ la dénk benn pàcc mu am lu si sooxe mu am li nga xam ne moom waroon na ci dox te doxul te yow nga nekk la responsabilité organique en même temps la responsabilité euh, autoritaire nekk ministre bi nga xam ne lépp luy daw si domaine boobu muy affaire de transport yow sa bopp yow lañ ko teg sa loxo donc la bonne marche résultat lañ la laaj quand on a des moyens à dañ lay laaj obligation de résultat différemment ak médecin xam nga médecin kenn laaju ko obligation de résultat loo ko politique yor yenn agence yi dañ leen jox moyen suñu deniers mais dañ leen laaj résultat donc nag nit ki bu ñu la dénkee te nga xam ne da nga amuloo résultat la première des choses mooy nga gis ni man kat lajj naa fii lajj bu jéggi dayoo da ngay présenter démission bu bu fekkee nekk na si bonne république la preuve même da xool si entraîneur football bi loo performe performe am na objectif bu ñu lay fixé soo fa yeggul da démission nag ak sama leader El Hadj Malick Gakou laa dégg ni mës nañ démissionné en 2013 ci ministre du commerce bi mu nekkee foofu donc ñiy wax ne Mansour Faye dafa war a dafa war a démissionné en fait Mansour Faye bi mu war a bi sax suñu pouvoir moo yàgg waxuma sax démissionné mais depuis événement Covid bi ak lu ci xew ba nga xamee ni tey jàkkaarloo naag seen naataango journaliste mu laaj ko si waru liggéeyam mu ne ko soo waxatee ma tëj la foofu la waroon xam nature injustice bu fi nekk war a def loolu donc Mansour Faye au delà de li xew nii fépp fu mu nekk dafa traverse ak ay échec ak ay coow yu ko topp mais on ne comprend pas pourquoi il est autant protégé tey aujourd'hui le président Macky Sall par le parallélisme des formes yi ñuy faral di wax ni mu ko defee woon si Diouf Sarr ba nga xam ministre de la santé bi nga xam ne am na les onze bébés ba Tivaouane ñuy décédé dañ ko démettre deg fa directrice de santé métti na du ma wax ne moo gën a métti ndax dee moom gën a bees la moo a am ndax ñi la ñàkk seen bébé métti na waaye responsabilité Mansour Faye autant que bu Diouf Sarr dafa engagé wu donc ko waroon a demetre teg fi keneen soog a doxal liggéey bi d'accord Euh, jërëjëf euh, Serigne Thiam danañu dellu si ci Mansour Faye ak rapport Cour des comptes bi. Mhm. Euh, ba tey ñu des ci état bi tamit ñenn ñi dañu gis ne dafa précipité dafa gaawantu jël ay dogal yoo xam ne bras de fer mën naa am seen diggante ak transporteurs yi te bu si amee bu transporteurs yi demee grève. mën naa am jeexital ci askanu Sénégal mën na ñoo sonn économiquement aussi mën naa faagaagal euh, économie euh, économie réew mi dogal yi état bi jël benn bi rek bokk na ci bus yi horaires yi vingt trois heures ba six heures du ñu daw euh, camions yi six heures ci suba ba dix heures du daw seize heures ba vingt heures du ñu daw lu jëm ci wàllum li nga xam ne mooy pneu occasion yi aussi dañ koy tere yooyu yëpp dogal yooyu lan nga ci xalaatoon na ban jéego la état bi waroon na commencé. waa xam nga tey mbir mi bi mu amee boo xoolee li ñuy wax le président Macky Sall est dans son rôle su ma gisee sax ñu koy félicité daf may jaaxal mi ngi mel ni aujourd'hui yaa ngi nekk def benn benn liggéey nga pare émission bi ñuy la félicitation non sa liggéey nga nekk c'est-à-dire un président de la République bu déplacé wu dem xoole ay victimes ay citoyens sénégalais yu accidenté bu def deuil national yëkkati xaalis jox leen luñ ciy félicité lan lañ ci xaalisu réew mi la sénégalais bi lu mu joxe foofu rek joxe nga ci joxe naa ci keneen joxe na ci lu ñu ciy félicité ba bokkoo politique di wax rafetlu nañ ko ay oustaz sax seetaan naa leen nu ma tudd seen tur ñuy wax ko def lu baax ñu nekk sa travail dafa war a un sacerdoce dafa war a nekk un rôle régalien loo xam ne yaa ko war a def def nga ko mun nañ la ci nag encouragé mais félicitation quand même dafa ëpp si yu mel noonu donc suñu ñëwee ci ginnaaw loolu yëpp bokk na si ay comportement ah. mesures yi ay comportement lañ si accident euh, ñaawlu mukk au niveau du grand parti leader El Hadji Malick Gakou wala mu nekk képp ku nekk grand parti du ñaawlu mukk gouvernement buy jël ay mesures jàpp ni sénégalais yi la ñu war a defaral duñ ko ñaawlu que gouverner c' prévoir il faut toujours être dans l' anticipation maanaam da ngay loo xam ni mi ngi am sa réew war na mun a am sa réew moo gën pilotage à vue dara ne këtt di jonn rek prévention te prévention dafa manqué nguuru Macky Sall boo xoolee euh, Sénégal si boppam sax nguur yi ko jiiteegum yëpp yëpp yëpp malheureusement il faut ay dégâts extraordinaires am ñu jug taxaw ne dañu ut luñ ko fajee tey ba ca lu joolaar wayoon waroon na doy ba dutuñu am yenn comportement yi uh-huh. mille personnes nit depuis bateau Joola bi mu ñëwee ba léegi yaa ngi fàttali ko bi ñu doon wax fleuve kii boobu Benteñe ñi vingt nit ay daaka bi lakk ay plus de vingtaine de personnes ay ñi nga xam ne ñooy dee ci accident bi si kilo bi dix ans si ginnaaw vingt six morts amoon na fa màggal yi da ngay gis ay ay gàmmu yi ay morts yi am màggal Touba trente et personnes décédées aujourd'hui ñu ñëw ñu amaat benn accident boo xam ne kii fait trente neuf morts dégg na sax ba quarante et un décédés sur des Sénégalais pour lan sur des conditions de fonctionnement ay oto wala ay tali avant ñuy ñëw ci responsabilité humaine bi nga xam ne aussi am na ci mais à 90 pour cent c'est la responsabilité de l'État parce que am na loo xam ne soo ko jiitaloon nga doxee ko nga waxee ko nga xam ko bu yàgg doo yegg si fii tey bay jël ay 22 mesures yoo xam ni ñenn ñi moom duñ fekkee mesure ndax sul lañ leen ba pare seen njaboot perte nañ leen mesures yooyu ngay jël 2017 euh, le même conseil interministériel am na fi même chose dans les mêmes règles de aujourd'hui ñu ñëwaat ba 2023 même conseil ministère euh, interministériel amaat ci dans les mêmes conditions loolu mooy wane ni gis nga pilotage à vue anticipation euh, dox ay euh, def ay jékki-jékki pour satisfaire benn partie de la population gaawantu joxe xaalis fajul réew réew boo koy def da xool li nga xam ne mi ngi koy doxee te du yoon depuis bu yàgg te dara xewul nga jóg si tout le monde savait état pneu yi ñuy dawee ak qualité yi ñu koy defee ak ni koy defee nga xam ne moom la ñuy def ba nga xam ne yow soo yoree sa oto bopp di complètement tali bi sinon da lay fen waxuma la nag ñaari bus yu tolloo noonu wala ñaari camion yu war daw foofu ñëpp xam nañ ni c'est yoo xam ne ay dëkk àll dañ fa am ay li leen intéressé ñenn ñi lu si bari mooy fexe nga am benn infraction routière bañ xool nañ leen ci am corruption bi di gën dem tey aujourd'hui bu ñu jëlee ay mesures jàpp ni mesures yooyu dañu régler problème yi non je suis tout à fait euh, désolé de le dire mais mesures du régler benn problème yi parce que xam nga lu ñu def ils n'ont pas attaqué le mal dans la racine mais dañ déplacer le problème seulement un problème se résout mal bi dans la racine mooy un état fort déjà quand tu vois des comportements anormaux nga dem ci comportement yooyu nga teel koo dindi tout le monde savait que bus yi bu ñu ñëwee dañ leen di au Sénégal avant dara di xew ñëpp koy defar état xam na uh-huh. uh-huh. la uh-huh. quinze debout vingt cinq assis ah. mais pourtant autorités yi dañuy romb bus yi ah. tey wan ma rek bu bus bu jub bis yëpp dañu wengee droit xam nañ corruption bi am ci tali bi xam nañ corruption bi ah. <laughs> technique yi ñuy jéem di wax yooyu noonu policier policier bu bu ubbi koofaram voilà filmé nañ dem filmé nañ ci sax policier ñu jàpp ñu ko filmé tëj leen deux jàpp ne léegi léegi même boo filmé nit à son insu yéen yàgg moom yëpp mën nañ leen boole tëj donc moi je pense que la mal est est, est très profond et je pense que nekkul da ngeen tëju conseil interministériel bien costumé bien yor seen voiture toog jël première mesure deuxième mesure troisième mesure alors que lépp lu ñu wax ci mesure yi soo ko liiree 22 mesures lépp liir naa ko lépp lu ñu wax ci mesure yi <laughs> xamoon nañ ko ba pare mi ngi doon am Sénégal moi je pense que il faut un état sérieux il faut un état fort il faut état bi ñu am ils ne sont sérieux que si ay caaxaan parce que au moment bu accident bi di am mais y a une partie de Benno Bokk Yaakaar bu doon euh, activer candidature président Macky Sall au moment bi accident bi di am au moment di bi am gaaw nañ rek dem jël ay mesures et ainsi de suite et j'invite les hommes politiques autant que au pouvoir ak opposition bi opposition bi ñoom aussi tamit il aspire à dëkk bi sooy aspirer à dëkk il faut qu'on évite des comportements de pure politique politicienne luñ def ñoom parce que non su may waxee noonu générale mooy gis nga askan wi du fond de commerce boo xam ne ku ne da ngay jóg rek di wax askan wi dañu sonn askan wi dañu leen def leen dafa nekk lu sérieux dafa war a nekk loo gëm dafa war a nekk koo xam ne yow pare pare nga def sa sacrifice bopp yow ak ñi nga ànd ak li nga mën pour l'intérêt général des populations sénégalaises et je pense que a demee parce que on dit toujours que les institutions demeurent et les hommes passent loo fi yàgg yàgg yàgg dañ fi jógee donc j'interpelle man de euh, ki may àndal saabu du fóot boppam mais xaarul nekk ci gouvernement yaakaar naa bañ dégg ko si ay ndimbal wala ay social wala ay taxawu nit ku wax El Hadj Malick Gakou ñu si bëri social lañ ko lañ ko xamee et pourtant ñu si bëri xam nañu il fa a fait plus de dizaines d'années dans le sport ñëpp xam nañu tout homme culturel autant que euh, nga nekk waykat autant que nga nekk euh, musicien autant que nga nekk euh, théâtre wala ngay football wala nga nekk dans la culture au sens général du terme ku ci nekk yaa ngi dégg mooy la gërëm naa Malick Gakou ndaxte day def te du wax parce que pour bi muy homme politique bi muy man mii bu fekkee am naa sama 5000 ba ma mën a dimbale ak comme mënti nekk il faut être au service de la population bu ëllëgee boo taxawee pour réew mi doo jëriñoo réew mi mais da ngay jëriñ réew mi mais ñun li ñu am ay politiciens de 1960 jusqu'à aujourd'hui su nekkee 80 laa doon compter jàppal ni 85 ay ay ay ay enrichissement illicite du mbokk mais réew mi mi ngi sooxe ba tey ndaxte à l'image de Japon ak Corée ak Malaisie ñoo yemoon PIB 1960 aujourd'hui ñoo mën nañ dajale Sénégal ak sénégalais ak li ñu am yëpp c'est dommage. léegi léegi Serigne euh, Thiam. Mm-hmm. Euh, dañu gis ne nguuru Macky Sall gi euh, comme ni nga ko wax dañu yàgg jël ay mesures. Mm-hmm. même 2017 jëloon nañ ay mesures ci lu jëm ci wàllum sécurité routière. mais dañu gis ne ñoom dañu dafa mel dañu am problème mu jël mesure. Mm-hmm. nee na woon dañuy jël mesure pour dëkk bi set. après mesure yooyu amul benn njëriñ. ne woon dañuy jël mesure pour Sénégal yi pour Sénégal am indépendance alimentaire gis nga ni mu mel. neew nañ dinañu jël mesure. Euh, ci lu jëm ci wàllum pêche illicite bi euh, lu ne daal danañ si jël mesure jël mesure ci euh, dund gu cher gi jël mesure ci location bu cher bi mais question bi mooy lan moo tax mesure yi ñuy jël du am résultat. en fait c'est c'est tellement même rigolo dafa reelu parce que dañuy jàpp ni il faut avoir des feuilles blanches am encre am bic bind. wala nga yor micro nga wax ay mesures pour dëgg bi nga régler ko malheureusement euh, le président Macky Sall dem nañ ba à chaque fois sax bu ñu ko wanee pour dire un peu parce que moom aussi comme que culture humour amu ñun Sénégal yi dañu am humour dañuy ree dañuy kaf dañuy wax mais moom comme que dafay tëj sax ku reetaan mais pour dire un peu bañ na ko ba moom bu ñu ko wanee dañuy jël mesure tailleur yi ko ko mhm. parce que tellement que dafa mesure ko noonu sax pour wane ni jël ay mesures kese alors ah, il faut être toujours li ma lay wax anticipation mais malheureusement le président Macky Sall daf ñu jaay benn rêve mais malheureusement bi mu ñëwee tëleem ak cuuneem ak ñi àndal moo indi li xew nii. et lan moo xew nii mooy yow nga ko la loi de 2014 sur l'habitation bi du tey de. c'est-à-dire que location bii ñuy wax nii du tey yàggul dara jël na si mais c'était depuis 2014 ñu jéem ko commencé nañ ko appliquer sur les surfaces mais dañ dem ba ci biir état amul fulla amul fayda un état fort boo ko ñàkkee rek si dëkk dafay soo et eh, ñun dañu manqué un état fort on a des hommes ñu nekk foofu mais on a mais amuñu état bu fort parce que la preuve état bu toogee jël xaalis dajaloo dem hémicycle assemblée nationale voté puis promulgué loi bi entre en te mënu ko appliquer kooku état boobu cuune la état boobu mënut a doxal réewam te malheureusement sur tous les points yi nga énuméré léegi le président Macky Sall ak équipe jël nañ ci ay mesures jël nañ ay mesures yoo xam ne voté nañ fi loi mu pour euh, les enfants la rue ak mandiaa loolu amu fi Uh-huh. tey lañ gën a wulee ñaay si tali bi tey lañ gën a ëpp mu nekk un danger public ñuy nekk si tali bi di saafonteeg oto yi di fop ay doom yu ndaw à chaque fois su may liggéey yor sama oto gis ñu fot seen boom yu ndaw yi sama yaram day daw parce que dama ne ñi danger bi ñu def sax xamuñu ko mais pourtant man dama nekk un citoyen sénégalais buy dem di liggéey mais un homme politique bu ñu dénk askanu réew mi daf leen di romb mais puisque duñ bëgg ñooñu jige fi ndaxte sarax yi leen sëriñ yi di digal pour ñu war koo mën a génnee pour ñu mën a toog mbaa président du leen démettre mbaa ñu gañewaat sarax yooyu dañuy foo mu am lu ñu koy jox moo tax ñoom autant que yalwaankat yi gën a bëri autant que seen mbir di gën a arrangé mais loolu c'est danger public et j'appelle l'État ñi nga xam ne ñooy jaay outil ci tali bi uh-huh. seen wërsëg la dàq dëgg la dañu bëgg am dara dëgg la dañ bañ a yóbbu waaye tamit boo ko xoolee foofu rek ëllëgee dara dina xew nga soog a jëlaat yeneen mesure nga ne dinañ interdire bépp vendeur buy daw si diggante oto yi à des yoo xam ne da daw lu sori oto di daw ngay daw si autoroute wala si VDN pour nga jaay ko dara nañ leen wutal espace nañ leen wutal fu baax teg leen fa ba nga xam ni ëllëgee nit ki lu mu bëgg jënd wax dëgg fa yàlla xam a dem pour am ko ndaxte man bi ma bëggee wax si rajo réew mi FM réew mi fe da nekku ma séenu ma ko ma ko dafa am fa ñu soxla nga cité yëpp énuméré ko ñu fi toogoon di ko wax du jeex état bi di si jël ay mesures mais le mec le président Macky Sall manque d' équipe de suivi manque d' autorité d' impact si ñu mu jël mesures yi ñu ko war a appliquer dañuy dem ba si kanam benn affaire mooy xew ñu jékki-jékki. ba ci kanam ñu neex ci beneen affaire xew beneen affaire xew non nu génnewaat ci donc moi je pense que encore une fois malheureusement am na ñu ñàkk seen bakkan ñeneen ñaanal yàlla xarale àjjana ah. waaye mesures yu mujj jël te nga énuméré ci benn boo xam ne ça risque de poser beaucoup de problèmes mooy voiture yi ñuy wax de 23 heures à 5 heures du matin doo ngeen dawati da di arrêté mais à partir de 5 heures du matin yéen ñëpp ngeen mbooleem ku yor voiture de marchandise wala ay transport yooyu yëpp da ngeen war a ñëw ndakaaru fii ñoo ñoom xamul li ñuy def ndaxte ñun ñuy def visite technique rek te loolu am lu woon nag da ngay yendu si tali bi ba ngoon macha yooyu noonu ñëpp ñëw gis nga li ñu fi wax ni yëpp bu fekkoon respecté nañ Sénégalais yi bu nekkoon ne bi muy prêter serment xam na le sens du serment aujourd'hui dañ naan non Sénégal des merveilles lañ waroon a tudd waaw waruñu woon tudd Sénégal boo xam ni tey dañu gis ñaari bus yu daje si benn tali waroon mën a am ay voies voie yu jël benn sance comme Ila Touba Sénégal foofu la war a toll et ñun nag euh, dinañ ci taxaw xam nga tax dinañ ci taxaw mooy mënoo def pomme politique di ŋàññi état bi aussi xam souffrance su sénégalais bi nekk opposition bëgg a wax rek wax ju neex pour yegg fa suñu programme programme alternative suqali Sénégal la tudd déjà euh, ñu koy woowee paas xam nga àdduna soo bëggee euh, doxal sa réew da ngay respecter doomi aadama dangay ngay respecté doomi aadama mais respecté doomi aadama mooy respecté doomi ak lépp lu mu làngool santeem éducation am liggéeyam transport am ak fépp fu am suñu euh, amoon temps bañ def ko programme spécial pass bi ne moom la ñuy càmbar da nga gis ni l'homme est au cœur de mais mais dans tout dans tous euh, les secteurs. programme yomb na mais est-ce que réaliser programme. les secteurs dans tous les secteurs de la vie bi ñuy am no dañ ci dañ dañ ciy liggéey ba pare ba pare am leader boo xam ni et je vous dis que day dund. carrément la souffrance des sénégalais parce que jëlal son comportement en 2013 dafa démissionné man de bëgg naa nekk ministre parce que nee nañ neex na au delà de de de li nga mën a yëgale dëkk mais moom daf ko nekk et les privilèges et ak li mu ànd yëpp et il a que la rupture tant bi ñu waxoon avec le président Macky bi muy toog 2012 ni rupture bi ñu doon wax ba jëlee fi Ablaye Wade amu fi mu teel ak parcours am ministre du commerce ak parcours am ministre du sport ak parcours am nekkoon conseil économique et social parcours am fi mu jaar yëpp yëpp président conseil régional nekk conseil municipal même avant muy nekk loolu nekk ci ay cabinet depuis Famara Ibrahima Sall te toute cette expérience de l'administration et de l'État y compris depuis bi mu nekkee dans les affaires dans les business nekk ci liggéeyu boppam nekk ay conseil en administration économique je pense que nit ko une équipe forte et dynamique pragmatisme et sérieux non loolu noonu pare nañ ko mooy répondre li nga wax ne est-ce que programme rek neex na non du programme rek parce que dañu ànd ak leader bi xam la mesure des choses et que fi mu wuteeg le président Macky Sall qui est dans les théories et dans les calculs moom i dafa nekk dans des pragmatismes boo xam ni xalaat lu dul Sénégal yi def ko confiance pour ñu gisal ko seen bopp. dinañ si euh, dinañ ñëw si euh, El Hadj Malick Gakou euh, ñu ñëw wax ci li nga xamante ni tey moom mooy njëg yi njëgu yokk yi ndax état bi dafa waxoon ne dafay wàññi prix yi. mais prix yi waxoon daf koy wàññi mën nañoo wax sax ne yokk joote la. Mhm. waaye dafa ñëw tamit yokk courant bi. Mhm. ak carburant bi. Mhm. Euh, maanaam. te carburant boo ko yokkee ak ak ak euh, courant mel na ni entre guillemets yokk nga yeneen produit yëpp ndax yeneen produit yëpp. presque danañ laal carburant wala ñu laal li nga xamante ni tey moom mooy moom mooy courant loolu nag dañ ne li ko waral mooy état bi bi njëg yokkee ci euh, carburant bi énergie daf ko subventionné woon waaye ñi nga xam ne ñooy waa FMI xam ne tey ñoo war a lebal Sénégal xaalis dañ na ko da ngay dindi subvention bi nga def ci énergie bi ngir ñu mën laa lebal loolu mooy nguur goo xam ne yow amuloo indépendance euh, économique mm-hmm. yokk googu noonu mm-hmm. ban ngaañte la ci réew mi Euh, li nga wax ni dafa am suñu responsable euh, euh, porte-parole du parti El Hadj Diawara mu nekk un professeur lycée Limamou Laye mathématique daf ko résumé mu ne le Sénégal le président Macky Sall a choisi le FMI au détriment du peuple sénégalais. Mmh. et loolu la résumé parce que yokk boobu nga gis et puis c'est en contradiction avec discours bi ñu dégg 31 décembre mu ne on dafa nekk ci année sociale. année dire que tey gis nga li ngay wax ak ni ngay jëfee dafa yéeme on dit kuy def économie ku nekk man mënuma ci sax sori économie wala ku nekk dëgg xam nga ni quand le monde fonctionne avec benn ramification ñëpp di dugalante économie parlant avec les bourses et tout ça bu amee inflammation di nga ko yëg mais tout tout pays s'adapte par rapport ak société ak population am xool nañ lay def ba nga xam ne loolu noonu population bi du ko yëg mais malheureusement tey le président Macky a encore montré que il préfère li koy lebal préfère lu neex Occident bi ba nga xam ne tey moom mi waroon a soulager le peuple sénégalais tey ñu toog ba nga xam ne naan ay essence moo yokk woon temps yi ginnaaw tey boole nañ si gasoil mais xanaa moom fu eh, fu ay produits yooyu yokkee c'est dans tous les secteurs moom ñoo koy yëg parce que wax nga ko léegi parce que bu yokkee gasoil tout ki kenn ku nekk boulangerie yi di ko yëg day influer sur courant bi day influer sur le vécu sénégalais yi dafay influer sur sénégalais marchandise bi mais day influer sénégalais bu bëgg a génn tey jël taxi taxi man ne ko ah gasoil dafa yokk ah. bu waroon a fay 1000 mu fay 2000 bu faroon a fay 2000 mu fay 4000 tey loolu noonu la ñuy dund souffrance boobu la ñuy dund ci Sénégal ñu jékki-jékki ñu naan woy euh, le président Macky Sall li muy defal askanu sénégalais mais lan la defal askanu sénégalais tey la sénégalais yi gën a sonn tey la gën a sénégalais yi gën a maar ci affaire demee noonu waxuñu dëgg ci 2023 bi discours à la nation bi wax ñu nañu mais danee année sociale Amadou Ba waxoon na ne dundu Sénégal yi dafa gën a ñoŋ assemblée nationale naam dund gi dafa gën a dund wér yaan mais lan moo tax waxuñ ñu réalité bi ci discours à la nation bi. mais yabel la rek waaye nag bukkit tamit bu bu tawee bu yabee waxambaane tamit si doxin bi la on a un peuple bi bu nangu si biir trop ba mu ëpp. gis nga tey laay déglu le matin fii ñuy wax si la révolution de Ben Ali ñu koy wax douze ans après. Ah. Ben Ali moo gënoon fort fukki Macky Sall ak juróom. El Bachir moo gënoon fort fukki Macky moo gënoon fort fukki Macky Sall parce que c'est des régimes autoritaires c'est des régimes militaires mais peuple bi bu mu taxawee jóg de li ñuy subir dina dakk dafa dakk le président Macky Sall nag li muy def di ko réussir dañu am peuple bu docile malheureusement dañu am peuple boo xam ni dina yuuxu rek mais du tardé heure ataayam. dina yuuxu du tardé heure añeem dina yuuxu mais dara du ko empêché mu toog ci taatu garab ñuy reetaan naka xaqataay di wax ainsi de suite dëgg la baax na mais parfois aussi la révolution ce n'est pas du sommet vers le bas mais c'est vers le bas euh, du bas de la basse la population vers le sommet noonu la war a defee il faut ñu jékki-jékki ñu xam ne suñu nguur ñoo ko moom suñu souveraineté ñoo ko moom ñu pouvoir ñoo ko moom suñu xaalis ñoo ko moom le président Macky Sall c'est l'esclave des Sénégalais pour ne pas dire il doit être au les gouvernements ak ñiy ñëwi aussi ñoom dañu war a nekk liggéeyal sénégalais ndax sénégalais yi ñoo leen fi teg malheureusement nag bu fekkee ni ñoom defuñu loolu ñëw di nax sénégalais yi si ay chiffres parce que boo xoolee man li ma jaaxal on dirait que ay ay ay ay grec rek ñoo nekk foofu noonu maanaam pour ne pas dire ay grec pour parce que yow ñoo fi ne ñun est ce que nekku ñu Grèce à l'ancienne parce que chiffres yi mais nga gis ni yow mii da nga kaa yëg si sa dund lépp oyof ci yow mais aujourd'hui tey jëlal rek yàlla xam na ni chaque jour ma wax ko plateau télé bu ma toog wax ko plateau rajo bu ma toog wax ko amul benn borom kër anaa ñoom bu la mën a assuré ni maa ngi joxe dépense bu mat ndax marché bi metti na boo xam ne su la sa jabar ne damaa jënd jënd diwlin la nga joxe yow jeex na. Mhm. doo xam sax nu ngay def ba ñuy taaj añ bi donc ñoom fekkee li ñuy wax wax dëgg fa yàlla dëgg la mais war nañ ko mun a gis nag xanaa nag si population bi mais tey defal micro trottoir fi nga dëkk nga xool li ñu li lay wax tey li ñuy def mooy ñoom dañ nekk si benn bambulaa ñoom dañ nekk si ay caaxaan ñoom dañ nekk ci ay eh, wax sénégalais yi lu dul dëgg pour ne pas dire ay fen te loolu gis nga ah. euh, Max président Macky Sall dafa mel ni jàngur si histoire Sénégal dafa mel ni moom ci boppam li ko fi teg xamul ne sénégalais yi bëgguñu injustice sénégalais yi bëgguñu ku ñu toroxal ku ñu nootal te moom loolu lañ ko jàppee woon sotal ko teg ko fii nii tey moom mu ñëw mu mel ni dañu fóot xel mi raxas ko tuur ko ba nga xam ni moom moom muy demee rek si benn comportement dictateur la am boo xam ni magnifié ko carrément mais si biir nu ma neex laay def ku mënut a jël autoroute à péage nga jël si suuf. Ah. su ngeen jëlul vaccin yi ma mayee ko. Ah. duma ko def si laaj wax wax wax. Ah. kuma def nii je vais réduire l' expression ma ne oui du ma ne non c'est-à-dire xam ni way du ma sagar yu xont du ma nekk fii di ree mel ni ku ñàkk fayda ay nit def seen humour reetaan nga jàpp leen tëj leen mais nous on a quel type de président malheureusement le Sénégal yi war nañ ko ndëppal ñaanal ko parce que ñii buñ fi jógewut ñun dinañ gën a sonn. d'accord fi la ñuy euh, rebondir sax ci euh, am mooy. Mhm. lu jëm ci wàllum liberté yi dañoo gis ne euh, ñun suñu constitution daf ñoo may am sañ-sañ dox ak dikk soo amee bànneex nga wax ko soo amee naqar nga wax ko waaye dañu gis ne li ñuy tere. ci ay rassemblement ci réew mi dafa bëri. ak mhm. ay marche mhm. beneen bi aussi li ñuy jël si ay nit di leen dugal ci kaso bi. dafa bëri te jamono jooju aussi ñi ànd ak président Macky Sall ñoo ngi def loo xam ne wala ñoo ngi wax loo xam ne mooy gën a garaaw te te te dara du leen ci dara du leen ci fekk maanaam liberté yooyu nga xamante ni tey euh, dañ ko restreindre lan moo ci sa gis-gis. non <laughs> boo xoolee euh, domaine boo jógee rek ñu foog ni foofoo gën a métti soo demee si beneen mu gën a doy waar sa à dire Sénégal dafa mel ni xolu taab fi ne nii c'est-à-dire xol boo xam dafa am taab fekkee métti foo làmb day métti yaramu màgget foo laal mu ne foofu la tey liñ jógee gum yëpp. sans parti pris nekkuñu fi pour wax le train qui vient à l'heure ay joxe nañ bourse familiale jóge nañ ci vingt cinq mille def nañ ci trente cinq mille def nañ ci trente mille indigence émergent nekkuñu foofu ñoom bu leen neexee bu ñu ñëwee fii ñu toog gi ak seen i chiffres encore seen i mesures ñu toog fii di wax mais dama lay wax le Sénégalais di dund mooy lu nga wax te ñun euh, da jàpp ni tëj bi ak a bëri mag président Macky Sall bu ñu ko defaroon liste ñu dugg kaso si régime dafa dafa mel ni article 7 bu constitution ko dañ ne la la la personne humaine dafa sacré hmm. waroo ko da nga ko war a protéger te protéger personne humaine mooy protéger lu dul dignité am nekkul nga solo ko yére mbaa nga solo ko tubee mbaa daal mais dignité am moom nga koy protéger te tey dignité sénégalais yi Macky Sall def ko ba bafoué trop sax yaa beaucoup de sénégalais yoo xam ne ñi ngi ci kaso yu ñàkk fay fayda tëj nañ fii benn koo xam ne terminal la doon def Bambey ñetti at ci caricature nee nañ lañ ko tëjee woon président dessin ñu génnee ko après bàyyi ko noonu avenir am waxutuñ ci dara ñi ngi wax ay papito crack di tudd ay nit ak di tudd ñu bëri ñoo xam ni en fait dafa xew jamono ce n'est pas des infractions extraordinaires la ñu def ba ñu war a leen a xañ jant bi mais le président Macky Sall day noppi rek te Moustapha Diakhaté nag wax na lu am solo te dafa yàgg président Macky Sall yàgg ak soxna Marème Faye Sall bokk foofu moo toog si plateau mu ne le président Macky Sall bu lay reen ni ngay wequ sax day reetaan pour wane ni rek le caractère de l'homme te loolu daf kay wane est-ce que ji nañ ko loolu voilà xaano ah fayut fayut naar bi xoromam jiwuñ ko loolu si ñetti at la defee 2009 2012 ñëw nekk président si aayam la si intelligence am non sénégalais ñoo ko sotle sénégalais ñoo jàpp ci Ablaye Wade mi ngi koy bundi xataal ginnaaw bi mu woowee Karim Wade ñu jàpp ni ñàkk na président assemblée nationale ñàkk na mairie Fatick ñàkk na ay pouvoir am génn na wàcc utiliser timidité am boobu utiliser naqaram boobu versé ko Sénégalais yi Sénégalais yi dawal yërmande ne kii moom mooy waaja mu jaay ñu gouvernement sobre et vertueux jaay jël benn mer gàddu yor saako ceeb non moom acteur la quoi franchement moom ku mën a joué la président Macky Sall léegi nag si kaw loolu tey suñu ñëwaatee di wax ni li nga xam ne duñu ko wax dëgg yabel la te population da nga ko war a respecter parce que le peuple est souverain donc lépp lu ñuy wax de matin bi soir du dëgg la preuve mooy dañuy wax benn affaire pare ay affaire feeñal leen exemple laa lay jox rapport sur affaire de armée bi 45 milliards yooyu ñuy wax affaire de armée bi rek dañoo wax rapport bi confidentiel la affaire de armée la mais bi mu génnee mais nit ñi dañoo tëj seen bopp parce que sur le côté de l'armée oui y a un côté mais am na yenn yoo ne c'est eaux et forêt bay bind ay vélo vélo non man mosuma gis ak ay ambulance mosuma gis àll yoo xam ne ay vdpédal xanaa aussi mën nañ leen équiper mais loolu noonu yëpp mooy wane ne lu ñu wax rek yàlla dina leen weer te président Macky Sall mënatul def lu sénégalais yi li ñu koy ñaan mooy dëgg ak gouvernement bi ñoom dëgg ñu respecté sénégalais yi bu fekkee ñoom dese dañ tuuti dignité nañ respecté sénégalais yi jërëjëf euh, Serigne Thiam mbokk yi moom la ñu invité moom nag euh, muy euh, muy juriste nekk ci euh, parti euh, nekk ci grand parti yor fa lépp lu jëm ci wàllum élection ak lépp lu jëm ci wàllum yoon ci euh, grand parti mu nekk conseil municipal ci ville bu Guédiawaye léegi Serigne Thiam. Mhm. président Macky Sall aussi sànq ñoo ngi wax mesures yi. Mhm. te yàgg naa jël ay mesures ay la yéwén wax dëgg yàlla du ko respecté. Mhm. beneen bi aussi sànq yaa ngi wax ci taux de croissance bi mais taux croissance bi bu doon. 30 pour cent tamit mën nañoo wax ne taux de croissance la boo xam ne entreprise étrangères yi ñoom ñoo ko moom ñoo fi ñëw euh, jël seen bénéfice euh, yóbbu voilà mhm. léegi président daf ñoo yàgg dig loo xam ne ñun duñu ko faral di gis mhm. mooy dafa ñu waxoon nañu gouvernance sobre et vertueuse mhm. yorin woo xam ne wu sell lay doon wu leer lay doon wu jub lay doon alalu askan wi kenn du ko luubal Euh, yàgg nañoo gis nag ay rapport luubal ay ñu baree bari si ñoom mais dara fekku leen ci mais dañuy wax si rapport Cour des comptes bi nga xam ne ñu bari dañu gis ne non seulement am na ay manquement yu bari yu si am waaye xaalis boo xam ne dañ ko période dafa amoon crise sanitaire moo amoon kenn xamul fan ngay dugal sa bopp nit ñi di faatu àdduna bi kenn ku nekk jaaxle jamono jooju ñu jox leen ay milliards pour ñu jàppale ci askan wi ñenn si ñoom def ci ay ndëngate lan moo ci sa gis-gis Euh, lu doy waar parce que bi nga jógee sànq si liberté yi yàggul dara nit ñi dañu war a ñaxtu. parce que boo xoolee euh, disposition article huit wax na ci la liberté de marche d'expression par l'image la plume wala dessin wala noo ko mën a defee surtout que rek bul heurter ordre public mooy la tranquillité publique dañ ko war a def. yàggu dara gis nañ fi tere nañ ko fi yàggu dara ñu bàyyi fi ñeen ñu ko def société civile mais li ñu tere si ay marché kenn xamul nu mu toll toujours yi dëggatee fonction liberté publique yooyu te liberté publique yooyu c'est des libertés fondamentales c'est les li ñu tuddee les droits à les droits fondamentaux droit à ceci droit à ceci droit à la loolu noonu yëpp respecté wuñ ko suñu jógee foofu tey ñu ñëwaat li nga xam ne tey dañ koo dund ci covid bi kenn xamul nu mu méttee ñaata nit lañ sénégalais lañ dàq seen barabu liggéeykaay ne parce que personnel bi moo war a réduire hmm. man dëkkoon naa koo xam ni dafa mujj ñibbi Gàmbi fi mu doon liggéeyee amul parce que mënatul fay fi mu dëkk ak ñaata nit ñoo dund Covid bi ak ñu leen di martyriser nga gis ñoo xam ne seen tànk mayu leen sax ñu daw a yenn kilomètres yi ñuy jógee ville ba banlieue bi bu 4 heures jotee ndaxte dañ ne 19 heures couvre fa 19 heures ñu tëj ñu ñun sénégalais yi ñu jaayuñu benn affaire ne il faut ñëpp jàpp si la président Macky Sall woote képp koy leader politique dem nga fa. Idrissa Seck dem na fa El Hadj dem na fa Ousmane Sonko dem na fa tous les autres dem nañ fa ñu ne la Sénégal est en guerre moo yooyu lañ utiliser ñu def prise de main comme arme jàppalante ñëpp jublu ak ennemi bi muy Covid dañ koy xeex ñu jël fonds Sénégal yëpp def seen xaalis seen partenaire financier def seen ñu tudd fi 1000 milliards. ñoom ñu wax ko. Serigne si Serigne si def seen xaalis si Mountakha moo njëkk def 200 millions def si. ñu joxe exemple ñëpp topp si ku am sa masque jënd. même journaliste yi joxe journaliste yi joxe yenn saa yi journaliste yi ñenn ñi ne pub bi fayatuñ ko. nañ bàyyi ku si nekk xool noo ko mënee ñooy leen doxal leen ñu def des lois d'habilitation assemblée nationale mu mën a jël ay ordonnance sans mu jaar assemblée pour affaire yi gaaw urgence ñu jël man bi si ba su tëddoo ko ci ay ministère ñu xëy xëy xëy dégg ministre bi di ko wax dage bi dage bi di ko jiiñ ministre bi ñu def benn rapport cour des comptes rapport de cent cinquante page plus de quatre-vingts recommandations am ci ñoom ñu naan six six mille six milliards la boo xoolee ci mill mais dërëm sax lewu la waxuma la ci et c' est pas vrai c' est des parce que dafa am six milliards mais il a des autres dépenses qui ne sont pas liées au Covid keroog mënu koo xayma bi ñu ko xoolee loolu noonu yëpp xam nga lan lay nuroo ne Sénégalais bu nekk dañ laa fekk fu ñu toon jam la si xol ne la naxee mbaay maanaam li ñu leen waxoon yëpp c' était faux c' était pas vrai c' est des mensonges de monsieur Diouf Sarr mais lépp la si biir c'est-à-dire que c'est des c'est des c'est des c'est yoo xam ne mun nañoo am melokaanu nit mais ñooñ ay xolu satan la ñu yor parce que yenn yi boo koy def te sa yaram dawul moment boobu noonu ngeen di séddoo ay centaine de millions ubbi ay compte fii di fay ay nit te liggéeyagul benn nit di am ay marché de quinze milliards te musul liggéey loolu ñu xëy xëy xëy la cour des comptes xaw ma ñoo ko ko sant wala santuñ ko ko xëy génnee benn rapport bu mel noonu tey aujourd'hui ñooñu noonu ñu si tudd ñu ngi naan ay waxu présomption d'innocence ak ay waxuñ leen lu tëj dëgg la Sénégalais dañ soxla d'abord seen xaalis parce que le président euh, guinéen si je me trompe pas xawma burkinabé bi si je me trompe pas bi mu fi toogee xoolu fi ku muy tëj ku ñu tëj ultimatum la joxee mu récolté des de milliards car deux cent quarante deux man xaw ma trois quarante deux milliards ñu génne ko ñun xamul luñ fi nekk di wax <laughs> non dafa garaaw Mansour Faye mooy génn te ñoom non c'est grave c'est des magistrats c'est des hommes dignes ay nit lañ ñu war a def seen liggéey et malheureusement loolu mooy Sénégal boo arrangé ci li muy def sax arrangé woo ko mu yàq la tey jii sa liggéey bi am na nooy waxee ñu ne woon casquette politique la ainsi de suite alors que population bi nga fi nekkal yow nekkaloo fi keneen donc tey loolu noonu ñu gis ko mu nekk des détournements d' objectifs des détournements de deniers publics enrichissement illicite le président Macky Sall nga xam ne moom moo génnee ñaari décret yoo xam ni dafa wax ne contrôle financier bi ak euh, yi nga xam ne moom lañ ci war a teg pour yéexal ko yëpp nañ leen ko teggil mu nekk ay dérogation pour gars dawal mais je pense que responsabilité mi ngi jugee ci moom d' abord responsabilité bi président Macky dafa waroon def ni François Hollande bi mu demee ba xam ni français yi ñoom wax dëgg fa yàlla amatuñ ci moom benn légitimité yaakaar demul wutin deuxième mandat mais moom war na mën a xam ne sénégalais à travers locales yi législatives yi ah. wan nañ ko ginnaaw du mooy nañ ko ay santet léegi nag gis nga cour des comptes il faut ñu def seen liggéey le secteur judiciaire il faut ñu def seen liggéey le ministre de la justice saisir nañ ko il faut ñu def seen liggéey seen liggéey nag il seen Sénégal yi teg seen bët ñëpp li nga xam ne wax nañu jëloon nañ ko nañu ko delloo et su laajee ñu dem kaso ñu dem kaso ba pare mu am des mesures fortes républicaines que toute personne dorénavant y compris ñi nga xam ne bëgg nañu ñëw 2024 mais ñaan mu doon sama leader 2024 ak ñi mu war a àndal ñëpp y compris toute personne bu defati à vie parce que foofu la ñu war a yegg quand même. dootoo war a ah mais mais tey Karim Wade du éligible Khalifa Sall du éligible waaye personne yii nii ñoom ñi nga taxawaan ñoom ñi def loolu ba pare jël sénégalais yëpp ne leen a xam encore une fois. dañuy dem ak te 2024 ñooy gagné. d' accord jërëjëf euh, Serigne Thiam euh, Serigne Thiam euh, grand parti yow yaa yor lu jëm ci wàllum élection xam naa dina ñëw ci élection présidentielle mhm. waaw ñu ñëw ci mhm. dana ñëw ci wàllum parrainage bi. Mhm. ndax waa Sénat ñoom def nañu seen rapport. te yéen 2019 da ngeen amoon problème mu parrainage. danañu si daal dikk mais sànq ci Mansour Faye moom xam nga Mansour Faye yaa ngi doon wax sànq bi ma lay wax si accident bi kane bañ ko ren dàq yàgg na. ci mbirum mu nekkee ministère bi ñu dénk wàllum ndox mi ak inondation yeeg milliards yeeg contrat bi Sénégal signé ak ak Suez ci wàllum ndox mi. Mhm. mais Mansour Faye dafa waxaat tey ci benn journal. Euh, ndax président Macky Sall dafa ne woon du ma ne oui du ma ne non. Mhm. mais Mansour Faye nee na ñoom léegi loolu bàyyi nañ ko passé nañ ko. Mhm. léegi oui la ñu wax oui et oui président Macky Sall sera candidat en deux mille vingt quatre te nee ñoom loolu lu munta ñàkk la. par force la. mais loolu mooy wane ni rek euh, xamadi gi ñu àndal si on essaie de parler wolof de vrai saalum saalum xamadi gi ñu àndal reewande gi ñu àndal ak yabeel bi ñu àndal parce que loolu jikko la du si question mag ak xale tey suñu toogee ba et loolu mooy aussi tamit yow président Macky Sall bi ñu àndal sax euh, respecté wuñ la fonk ñu la sa kàddu égal zéro mm-hmm. lijjanti wuñu ko non ñoom nañ kàddu Macky Sall te kàddu Sall nag bu ñu demee nag ba àdduna li si waxoon benn penseur mu ne on le verbe lier mu ne on lie les bœufs par les cornes mais on lie les hommes par la parole ou par les paroles tey suñu demee ba nga xam ne ñoom ak président Macky Sall parole jiitatu liewu leen mais ñoom aussi le président Macky Sall le peuple sénégalais a tout sauf benn état dañu am nit ñu nit ñu ñu xam ni bon à la limite non je vous ay ay ay ma sax ñoo leen di tane parce que dañ tàngal xolu Sénégalais yi c'est-à-dire que ñun bu ñuy wax sax dañuy jàpp ni ñii non non non ñi ni ñu liggéey Sénégal ak fi ñu delloo Sénégal dafa yéeme donc ñoom bu ñu toogee di wax waxatuñ si ay oui et non waxatuñ si ay oui de un ah le wax na te wax mi fi tege li mu wax mi ngi si ay vidéo mi ngi si ay rajo mu bind teg waxam nag ñëpp naan lu coow li jaru ko ndaxte moom la mu wax wax na ko ba pare moom waxagut waaye li mu wax daa évoluer ndax dafa jógee si non xalaatu ko waru ko te matal na dem si nii wii nii non bëgg a dem si wii donc waxam évoluer na parce que bu fekkee ni yow. da wax si sa turu directeur de rajo bi wax loo xam ne xam nga ni directeur bi bu fekkee dëgg daa war a génn weddi ko ne la bu si wax mais soo ko waxee dañ naan naar bu ndaw bi lu mu wax si naar bu mag bi la ko déggee wante ñun duñ def lu dul di leen xaar au coin gis nga lu ñu mayul président Abdoulaye Wade du président Macky Sall mii lañ koy may ah bon xalaatuñu ko ñun opposition bi ñun grand parti Elhadji Malick Gakou ce point de troisième mandat bi c'est notre même si on doit y laisser pour l'intérêt des peuples sénégalais du ñu nangu ñu def benn constitution bu 2001 mu verrouiller suñuy mandat nga def ko référendum jëlee ko comme argument taxaw wax ko taxawaal wax ko ay nit jël Sénégal dëpp ko sàcc ko wuruj ko corrompre ko tey toogaat naan dañuy taxaw par la force seeni kaw la ñuy jaar loolu boobu bu la neexee nañ tëju waxee ko nu la neex mais buñ foogee ni jënd ay policiers def ay concours def ay armée loolu mooy tax ñu mën a gaaraan seen affaire non dama yaakaar xamuñu est mais mën na ko mën na dugal sénégalais ci kaw te kat attention li gën a yéeme mooy ñu bëri nañu foog ni kaw bu amee ay manifestation mooy am ay sénégalais dee ñu tuddee ko kaw non la kaw mooy kan les frontières ne sont plus sécurisées dëkk am coow da ngay permettre am ñu dugg loolu moo dal Mali loolu moo daloon Libye da ngay permettre ay ñi kay waajal te ñun xoolal lu ñu ceinture yépp dañ nekk ci ay terrorisme ñun suñu stabilité dëkk bi dañ ko war a maintenir. d'accord et que maintenir ko mooy 11 morts dañu am en 2012. lu raw onze morts su ko président Macky Sall buggee forcer troisième mandat dina am wante ñoom troisième mandat boobu suñ koy naree exercer non dinañ leen jaaree fa lañ koy exercer. d'accord léegi Serigne euh, Ismaïla Madior Fall. Mhm. moom ak président Macky Sall ñoom 2019 euh, Ismaïla Madior Sall Fall sax bien avant 2019. Mhm. mais dafa waxoon ne président Macky Sall mënut a am ñaari mandat daf ne kenn mënut a am ñaari mandat mhm. yu tegaloo. biñ ko laajee neewoon na amul jàdd koñ amul euh, interprétation. Mhm. président Macky Sall waxoon na lu mel noonu. Mhm. mais Ismaïla Madior Fall fan yi dañ koo dégg Rufisque. Mhm. mu dajale fa waa APR si wàllum njaayum carte. ne léegi moom waxatul waxu droit. waxu yoon. léegi waxu politique lay wax. Euh, maanaam sukkandiku li mu waxee sax maanaam mën nañoo wax ne du caagane mbirum droit mooy ak mooy euh, mooy dëggal. Mhm. candidature président Macky Sall mais deux millions de cartes ndax nee na majorité moom mooy imposé ñoom jàpp nañ ne bu ñu amee deux millions de cartes APR ñoom force président Macky day nekk candidat mhm. léegi en tant que professeur Ismaïla Madior Fall en tant que ñu dénk wàllum yoon ndax war naa wax ne waxatuma yoon waaye ci politique laay wax xam nga ñu dañuy am jeune sax suñuy wax la professeur Ismaïla Madior Fall parce que suñu doyen la au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques mu nekk professeur bu émérite respecté au niveau continental au niveau même espace mondial bi yëpp doon sollicité ko fu nekk suñu demee tey ba waxam nu roog waxu xale suñu demee xam ba waxam amatul benn honneur amatul benn dignité ndax politique c'est malheureux faut le dire ça nous gêne ñu siy wax te moom ñu mu bokkal niveau yëpp génn nañu wax récemment gis nañ le doyen Abdelkader Boy dégg nañ fi le professeur Babacar Gueye dégg nañ fi le professeur Makhtar Fall ñi ma lay wax ni ay naataangoom lañ xam na leen bu baax a baax baax dégg nañ fi le professeur Babacar Gueye ñu may wax xam nañ leen ñu nekk droit public dégg nañ fi tout tom épris de droit et de justice et d'honneur et de dignité xam na ni waroo waxee ni mu waxee moom et la dangerosité de ces propos mooy le fait mu nekk professeur d'abord de droit le fait que aussi mu nekk ministre de la justice ak le fekk moom ay bindam tege fi sur des réformes consolidantes et déconsolidantes mu wax ko le fekk ñu wane ko ay vidéo mu ne nul nul nul répété ko lii dafa leer parlant du président Macky Sall bii mënul def plus de demanda mandats xanaa lii leer na wax ko tey kooku bu taxawaatee tey ndax politique ndax honneur ndax dignité lépp mu jaay ko pour taxawaat di waxee pour les beaux yeux du prince on ne peut que se sentir très mal parce que ce la la vision de l'homme et ce n'était la dignité de l'homme dafa amoon wekk dafa amoon yëg mais aujourd'hui lépp summeeku na ndax li ñu wax la politique bu duggee par la pot le droit par par la fenêtre mais loolu dañ ko war a xeex loolu warul nekk slogan bu ñuy appliqué mm. mais tey moom bu toogee loolu noonu yëpp tey mu wax ko dem ba naan suñu amee deux millions de cartes électeurs ay yoon ak ñàkk yoon ak loolu mooy wane le peuple a choisi Macky Sall te day def mandat moom dama xam ni kon il est très contradictoire te nee majorité mooy décider mais moom il a une vidéo bu ñu ko wane waat ne la majorité ne décide pas ci affaire Ablaye Wade bi moom ay bindam teg na fi ne Ablaye Wade n'a pas droit à un troisième mandat Ablaye Wade demoon na fi ba woote fi ay yeneen constitutionnaliste France français mais moom si ñu ko contrôle neex di waxee noonu ko neex en fait luñ ko forcé la xanaa laa yaakaar waaye nuroo wut ak lom perte lu bari bari bari même bu fekkee ni yoonam nekku si parce que politique dina dem ba tool foo xam ne dafa mel ni lay ñàkk jom yow safa dara safatu la fa lañ toll wante nag xam nga lan laa ko war a fàttali muy wax bu amee ba 2 millions 4 c'est-à-dire que puisque def ne la majorité moom mooy choisir war na mën a xool le comportement moom moo la choisir ba nga xam le peuple vous a lâché ndaxte les représentants de l'hémicycle exercent la voix du peuple donc suñu la bàyyi de 140 indi la 82 ngay xëccoo si opposition yaakaar mi mutu wala yaakaar ku fa jugee pour nga am majorité non kon moom waroon na dellu foofu mu xam ne le peuple war ko ginnaaw et nag ñi ngi wax mu dellu si à la raison parce que ñoom ñooñu ñëpp di continuer di wax waxu troisième mandat bu fi dëgg ils se mettent en danger et ils leur famille en danger loolu moom nañ ko xam mu dugg seen bopp d'accord jërëjëf euh, Serigne Thiam euh, grand parti léegi ñu ñëw ci wàllum euh, parrainage mhm. ndax fan yi Sénat ñoom dañu wax ne mhm. parrainage bi dañ ko war a dañ ko war a xoolaat ndax ñoom nee nañu non seulement war nañu koo euh, war nañu koo wàññi waaye euh, nee nañu tamit lu jëm ci wàllum doublon dañ ko fee war a war a dindi. Euh, ñoom wax nañu yu baree bari ne war nañu ko war nañu ko xoolaat parrainage bi. Mhm. yéen 2019 président Malick Gakou daf ci amoon jafe-jafe. Mhm. ci lu jëm ci wàllum parrainage boobu ndax 2024 bi incha allah yéen a ngi waajal lu mel noonu. waaw xam nga si parrainage bi sax euh, tey li nga xam ne moo waroon nekk la mesure forte puisque ñoom dañu forcer ay mesures mooy ñu supprimer ko xam nga tax parce que dafa nekk loo xam ni euh, cour de la justice bu e e woo daf cee wax dafa nekk un obstacle à la libre participation pour des élections pareilles comme président présidentielle et que la constitution moo permettre à ce que ñu dem wuti baatu sénégalais yi fekkee remplir nga les conditions bu ñu xoolee article 4 donc suñu ñëwee tey su toogaat ci ay parrainage ñu ko kaat di ko jéem a modeler toujours ñoom ñoo nekk seen calcul ñoom ñoo nekk seen façon comme ni ñu ko defee woon comme ni nga ko waxee génn euh, ministre Boun Dionne ne juróomi candidat la am taux de pourcentage bi la am ay jigéen topp si seen gouvernement ay nit topp si ñoom ñëpp ñu génn ñu am juróomi candidat am résultat yi nu ñu ko waxee woon ça que filtre boobu ñuy jéem a wax naan dañuy bañ candidat yu bëri c'est faux ca à dire que dañu am logiciel boo xam ne ñoom ñoo siy travailler am possibilité boo xam ni may dem di bëre même may tànn ni ma bëre gis nga la réalité du parrainage de concernant le grand parti ak El Hadji Malick man ya ma nekkoon acteur en tant que chargé des élections mais aussi en tant que le recours bi ñu dugal conseil constitutionnel man ak suñu responsable des cadres bi nekk Pape ak le professeur Aziz Mbodj bi nekk Bambey nekk professeur de droit public ñoo defandoo ko Euh, Sénégalais yu bëri dañuy wax matalu leen parrainage matal ngeen mais c'est absolument faux le parrainage boobu dañu lay demander benn pourcentage ba pare 1 pour cent ba pare demander la nga valider sept régions obligatoires à raison de 2000 ñun ñu def 11 régions après le président Macky Sall nous sommes le seul parti bu valider les 11 régions. biñ validé onze régions bi de source claire wax naa ko fii ci benn plateau euh, y a des nga dëkk bi ni muy doxee mooy diw du bokk. le président du conseil constitutionnel day jot ay injonction ñu xamal ko ni diw du bokk gis nga le président euh, Malick Gakou. du dem si ay élection te parewut nit ki melul noonu yàgg na fi xam na administration xam na politique xam na lu ñu defee si élection mais le problème mooy xam nga li ñu si doon ragal c'est très simple ils ont fait un calcul te sóoraale wuñu Ousmane Sonko parce que dañ ko nattee si proportionnel la jàllee si député natt ni ko matul dara génn minimiser candidat ay réseaux sociaux ne loolu du ay électorat ay réseaux sociaux ainsi donc dañ jàppoon ni kooku yeggul fu mu jaaxalee le seul problème Malick Gakou la naroon a nekk parce que dañ jàpp ne l' électorat de Karim Wade et l' de Khalifa Sall bu ñu leen éliminé c' est de Dakar dañuy reversé aussi El Hadji Malick ñu jàpp ko ñu jot des injonctions fermes lii jour boobu noonu de 5 jusqu'à quatre heures du matin jaabante yi fa am grand parti conseil ak ci guddi gi li fa xew yépp man maa ngi taxaw ci tusu guddi gi ba quatre heures du matin presque ñi ngi taxaw coow li fa am Mimi bi ñëw arsenal état bi ñëw armée bi ñëw gendarme ñëw ñu fexe fexe fexe ba dugg def benn forcing jël suñu candidat wàccee ko jusqu'à la huitième position. te yéen a fa ñun ñoo fa nekkoon deuxième. ñun bi président Malick Gakou génnee si jeton bi dañ doon yuuxu Gakou président Gakou président bu ñu publier liste yi ñi nga xam ne noonu lañ toppalantee et de ñun duñu ko nangu duñu dem

lan moo tax ñu éliminer ko. 2019 li tax ñu éliminer ko dañ ne dafa am ay doublons donc c' était pas une question de mataloo de les sept régions exigées. Ah. c' était pas une question de mataloo de le pourcentage demandé mais dañ ne dafa am 8888 yoo xam ne dañuy gis sa tur ah, gis sama tur ñu ne si ñi ko jiitu buñ calculer tur bu ñu gisee Serigne Thiam ah. si turu grand parti liste grand parti ah. nee gis nañ ko si yi ko jiitu yëpp même tur yi ñuy calculer ba ci 8888 def nag ba am ñe 48 yooyu xam nga la xam du mystique mais ñu ne loolu la manqué ñu ne kon nañ dem defaraat ko en ce moment on avait stock avec l'équipe du parrainage équipe bu doon veillé matin midi soir doon liggéey foofu ñu ne kon nañ dem tànn ñu exiger ñu 8888 parce bëggoon déposer plus que ça pour yokk suñuy chance doublon yi ñu ne non rek la ñu a indiwaat ñu indiwaat 8888 ñu defaat seeni calcul ci dugal seen affaire ñu ne dafa am 796 doublon yu ci génnaat ñu éliminer ñu à cause de doublon yooyu ñu bëgg a demaat renforcer ko ñu ne non on ne nous permet plus ñu def ko ndax benn yoon boobu lañ ko war a régulariser alors que le code électoral avait parlé de compensation jusqu'à atteindre le nombre requis pour violation boobu loolu moo éliminer El Hadj Malick donc ñiy wax ñëpp di wax ay parrainage bi dañ koo mënta matal ak bi amuñu ko suñu parti amuñu maay électoral on rappelle que onze régions la ñu validé. d' mhm. euh, baax te ñu ngi ciy su ñu sañoon nag euh, wax dëgg fa yàlla pour l' intérêt des peuples sénégalais pour l' intérêt de respecter la libre participation parrainage bi waroon nañ ko saytu génnee ko fi woon ndaxte loolu la CEDEAO wax mais malheureusement ñu ngi ko maintenir ñoom ñu ngi ciy travailler bu baax baax baax. parce que on a une équipe dynamique électorale on a une équipe dynamique boo xam ne mi ngi réfléchir ci loolu. Ah. donc je pense que à ce niveau le président Macky Sall n'ose pour remplacer le président Macky Sall si président pour doxal li nga xam ni relation économique may na ko carte d'adresse may na ko pedigree may na ko expérience may na ko pour mu teg ñaar euh, benn benn jegeyantoo non xam nga bu deekee ab jegeyantoo de xanaa jegeyantoo de deux sénégalais la yu dëkk Sénégal ki nekk le président moom mu nekk citoyen sénégalais nangu ne Macky Sall moo nekk le président mais depuis 2013 bi nga xam ne moom la démissionné su gouvernement am mi ngi ko gisaat ci problème Covid bi ci lañ rencontré waat tout le monde ñu bëri jéem nañu wax président Malick Gakou day liggéeyal Macky Sall mais xanaa nag moom moom du ñàkk fayda ñàkk dayoo ñàpp doyade ak ñun yàpp ñu ñun ñi ànd ak moom depuis 2016 ba léegi ñu ne ñun dañuy liggéeyal président Macky Sall tous les actes politiques même le premier ma leeroon naa ñi te dem di rencontrer le président Macky Sall ñu war a sur les problèmes du pays dafa def réunion 46 départements toog leen wu convoqué ñu ñun ñëpp ñu jox ko mandat ne ko demal nga waxtaan ndax Sénégal dañ ko war a waxtaane Sénégal bi mu demee jéggoowuñ dafa dellusiwaat ne waxtaan nag moom homme d'état nag du ngeen weer li ngeen di wax waaye de toute façon ñu ngi resté waat opposition bi donc de 2013 bi muy génn AFP bi ñu ko fay dàq bi muy créé grand parti et toutes les actions Euh, électoral yi am référendum ak nekk local législatif et de suite ñëpp gis nañ la àndal opposition a ñu ngi coalition Yewwi Askan Wi dañuy doxee rek li nga xam ne loolu la charte bi tëral charte bi moo nañ ànd local ànd législatif mais ñoom ñoo signé bu présidentiel jotee leader bu si nekk mun ngaa dem uti sa coalition bu ñëwee ki jël deuxième ñu ànd moom donc à partir de suñu congrès bi suñu séminaire bi à partir de suñu tournée ñu ñu waajal ñi ngi ci li nga moo jëmale le président ko bëgg a prévoir à partir du mois de mars ci ba mois de juin cest dire que même l'équipe à travers Bérouba que je salue au passage mu responsable de la vie politique ak ñi ko waroon a àndal ñëpp réunir nañ ci itinéraire yi réunir lañu localité ndaxte Sénégal bu tuddee Sénégal mais chaque localité a ses problèmes réels. Ah, Sénégal yëpp ngeen voilà non loolu defoon nañ ko defaat nañ ko xanaa dañ koy dolliwaat tournée woon national def nañ ko deux fois danañ ko def danañ def tournée internationale. parce que pour 2024. ah moom weesu nañ pare te bu fekkee ne sénégalais yi bëgg nañ nit ku baax nit ku am yërmande nit ku am respect ak dignité nit. ak nit ku am xam-xam si économie parce que bul fàttali ni c'est un docteur en économie master en commerce international nekk ay ministères yu bëri di liggéey ci business am des relations bu ñu bëggee un homme qui va relever ce souci économique bu ñu am ay industriel non il faudra que ñu tànn le président El Hadj Malick Gakou te ñi ngi koy woo ci loolu mu xamle boppam bu baax a baax a baax a ci loolu parce que sénégalais yi quand même wax dëgg fa yàlla bëgguñ lu dul ku leen jiite ci teg ko ci yoon. d'accord mais euh, Serigne Thiam daloon président du leen dal jiite réew ba pare amuloo entourage bu la mën a boo mën a former pour gouvernement est-ce que biir grand parti am na ay cadres yoo xam ne tey bu El Hadj Malick nekkoon président 2024 am na cadre yu nekk ci gouvernement bi. waxuma la cadre waxuma la cadre rek. mais <laughs> c'est des hommes d'état la am nekkul ay cadre kese buy liggéey fii par exemple tey ki nga toog di wax ak moom c'est un enseignant du supérieur université lay jàngalee faculté des sciences juridiques politiques lay jàngalee porte-parole bi ma la wax sànq El Hadj Diawara c'est un professeur Assane Mangane bi dirige les enseignants moom dafa nekk un professeur aussi Pape Sow c'est un éminent cadre boo xam ne dafa liggéey dans les stations de Shell de plus de trente ans expérience avérée diplômé boo xam ne boo xam Mor Diaw c' est un en économie nekk am ay faculté des sciences économiques bii muy diriger le secrétariat national de la jeunesse du parti tey nga jël ki nga xam ne benn par benn nga jël Kourouma mu nekk un professeur de philosophie directeur de beaucoup d' écoles su ma fi nekkee di la cité dañ naan ku lem juum wala doo matal amul koo xam ne day taxawaalu jël politique def ko métier non amu ko. si le plan international ci wàllum diplomatie est-ce que am na carnet d'adresse euh, au niveau international. laajal président Macky Sall moom mi nga xam ni dafa dem ba Pologne ubbi fa ambassade pour bloquer El Hadj Malick Gakou xam nga malheureusement dafa am jikko bu El Hadj Malick Gakou am mu jikko bu nawloo sénégalais yi bëgg mooy dal ak bañ a wanewu mais nit ki dafa yéeme te ñun loolu lañ bëgg mu teg ko fële. ñu ngi koy woo loolu lañ bëgg mu xam parce que tey non pas si dal gi pour wane ni moom y' pas un homme politique ci opposition déjà bi mu bokk je parle pas de succès de tal de ay ay coow ak ay wax ainsi de suite mais je parle de d'homme de pedigree de background jaar-jaar expérience xam de métiers de l'affaire amul koo xam ne mën nga ko naataaloo parce que le président Macky Sall si boppam xam na ko donc carnet d'adresse ak diplomatie no lu ñu lu ñu lu ñu bëgg si El Hadji Malick Gakou rek mooy mu dolli jug ndax jug na waaye xam nga foofu waaw waaw mu mu gën a mu gën a dolli mu dund jug gën a dolli jug ndaxte nekkul koo xam ne dañ ko war a ñàkk xam njëriñu Sénégal la le Sénégal bu ko xamul mi ngi ñàkk xam ko doy waar parce que le problème est que waaw euh, euh, xam nga Sénégal xam nañ El Hadji Malick est-ce que xam nañ ko ci nit ki ni mu toll koo xam ne bu ko est-ce que bu ñu la tegalee jaar jaar El Hadj Malick Gakou bi mu nekkee cabinet Famara Ibrahima Sagna ministère yu mu jaar agence yu mu jaar conseil ministre yu mu jaar fédération football bu mu jaar culture bu mu def homme d'affaires bi mu doon est-ce que bu ñu leen tegalee sénégalais yi wax dëgg fa yàlla est-ce que nañ mën a jaawalee fëriñ ak këriñ arrangement li gàkku du moroomu ñeneen ñi si carrière bi euh, jeex na ñu lay sant di la gërëm maa leen di sant aussi di la gërëm euh, di ñaan yàlla lépp lu ñu fi waxtaanee mu nekk luy jëriñ d'abord euh, auditeurs yi ñi nga xam ne ñoom ñokk di déglu jëriñ Sénégal jëriñ askan wi di woowaat rek tous les leaders ak ñu militants sympathisants yu nekk grand parti déjà ñu gën a taxawu jublu si massification bi jublu si parrainage bi préparer tournée yi ñëpp ñu nekk les délégués départementaux ne y a des dates prévues que direction parti bi ko jël te dina si ñëw euh, di woo le président Macky Sall ak le président ak ñi mu àndal ñëpp ñu respecté sénégalais yi wekk sénégalais yi ñu commencé defar ndànk-ndànk seeni valise xam ne bu ñu demee si njekk dañ leen gunge suñ demul si njekk dañ leen fi jëlee. d'accord jërëjëf Serigne Thiam mbokk yi mu bokk ci grand parti muy jàngale lu jëm ci wàllum droit ci université Cheikh Anta Diop mu nekk euh, conseil municipal ci ville bu euh, Guédiawaye moo yor lépp lu jëm ci wàllum élection ci grand parti tamit lépp lu jëm ci wàllum yoon maanaam wàllum juridique. moom lañu ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo mu nekkoon ci wàllu machine bi mbokk ñu leen di jox dig daje samedi bii di ñëw allah